koo yàgg di utiliser utiliser utiliser utiliser utiliser utiliser xoolal léegi mbir mi nekkatul sax info ay coalition am fee ama ama ama ama am au finish naxaate lay mujjee léegi maanaam yéen da ngeen di ànd nii mais da ngay dend ak nit sax mu leeral ne kii daf may nax mais garaawul. nañ ànd bëggante wu ñu waaye nañu. mais man nan laay ànd nit ba pare te mu leer ma ne kii démb rek moo ma doon wax ne ma mën dëmm laa. wala xamoo sax turam. mais garaawul naa naa ànd ak moom quoi loolu mooy yow yaa ngi nangu ne yow kii moo la tam. et puis ñoom commencé sax di tamante. non am ci am non non non c'est que xam man nag. man commencé guñu sax non non non man nag bu ñu duggee ci affaire xam nga man nag bu ñu duggee ci affaire politicien bi kese. Mhm. dama naan ils sont dans le mhm. ñoom ils ont opté pour l'opposition kon nag ñoom ñu booloo dem ànd bennoo loolu moom moom moo leen war mais waxuma loolu jaar. mais ñun dañuy ñëw ci composition yeeg ak li fi xew nii bu yàggul dara dara dara. Mm-hmm. dañu waxante dëgg man mënuma nekk fii kërti kërti fii nii gars yi lu nekk ci coalition yi kii ba mais bul bokk ci ñoom man jënduma carte Pastef bokkuma Pastef mais yéen vous avez opté pour un changement mu amoon benn cadre boo xam ne moom moo leen lié bu tuddoon Yewwi ñu ne lan mooy objectif bi kaa leen ngeen signé ngeen ñëw ngeen toog ngeen signé danañ ànd local danañ ànd député présidentiel yi ku nekk na dem le meilleur candidat day yeewi deuxième tour dañ leen ko jàppale meilleur candidat wu yeewi bi gagné premier tour waaw loolu du benn boo ko jàppalewul war nga la nga signé woon te te même boo bokkul woon yeewi sax nga ne yow opposition nga jaaral opposition ba yàlla dogal na gagné na mais mu gagné le 24 mars le 25 nga ne opposition bi xaaral ma yëg ko waaw doo leen ma dimbali ngeen gindi ma may wax nii rek ah hmm. doo leen ma dimbali. Hmm, yow opposition nga wax. na fi Macky jógee na fi Macky jógee na fi Macky xoolal bul bokk Yewwi bul bokk Diomaye président yow bul mës a toog ak Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye yow nee nga opposant daan nga campagne pour le départ de Macky léegi Macky Sall dem la le 24 le 25 nga monté waat opposition. bu dee ñëw Abdou Mbow ko monté day man man d' accord naa. ils sont dans leur rôle. seen logique la ñu ne seen logique lañ ne. Mhm. ñoom la nit ñi waxoon ne xamoo leen mënoo leen tous nañ leen fi jëlee jëlee nañ leen fi kon ñooñu moom au lendemain de leur défaite dañu war a takko takku ni nga gis wax sénégalais ne da ngeen a juum waa Pastef fii mënuñoo yor réew mi ñu ñëw à la charge commencé xeex mais yow nga wax ni opposition nga bokk mais opposition boobu noonu sa waay gars yi ca ëllëg sa nga ne ñii nañ fi jóge waaye loolu nag moom mooy golo wàccal golo yéeg du golo wàccal gaynde yéeg di loolu mooy làmbi golo loolu mooy naxaate non mais saa yi dañ leen waxante dëgg mais honorable ñii mosuñu jógee sax di opposé wu ak Pastef euh, <coughs> parce que avant muy nekk au baax ñii ci élection yi ñoo doon attaqué au lieu ñu attaqué président Macky Sall mais ñii toog ci euh, ci ci ci ci table bi yëpp. dafa da nga amoon da nga doon am impression que ni Ousmane Sonko moo nekkoon seen adversaire donc ñoom ba tey dañoo nekk di. Mhm. am nañu ko mosul wax am nañu ko mosul def am nañu ko mosul soo waxee dañ naan moom poulain wu gàkku la dafa signé meilleur candidat de Yewwi bu demee deuxième tour ñu jàppale ko le meilleur candidat de Yewwi a gagné au premier tour waaw lu fi soppeeku moo tax ci ëllëg Sala Malick Gakou bind kayit ne ñin lu ñu waxoon moom lañ def. Mm-hmm. nous soutenons la coalition présidentielle. et sans condition. logique pour logique. bëgguñu maire bëgguñu député bëgguñu ministre bëgguñu euh, euh, direction générale nekk directeur bëgguñu dara. ku ca ne ca la nga ne jàppale jàppale ca gouvernement ba ba keroog nag ngay gis ne ñoom politique bi ñu indi woon ña ngay def ne Macky te ñun dañu gëm ne ñun duñ def ne Macky sans condition condition ba ñëw ci coalition Diomaye bi ci kanam. Mhm. lu indi coow li. mais mais honorable Diop. waaye nous nous soutenons sans condition. Eh, boo demee ba ci biir weer deux mois trois mois gars yi ñu ngi nekk ci dossier yi. saa waay gars yi wooguñu ba léegi. Mhm. jékki-jékki commencé ah oui parce que aussi réew aussi bon xam nga le côté boobu moom d' accord na malgré je suis le Diomaye président mais réew dañ koy waxtaanee bëri. yéen loolu la ci biir mais jàpp nga ni seen coalition bi réussite biñ ciy xaar dinañ ko daal di am ndax euh, li si mi ngi ñëw ndax jàpp nga ni ñi fi daje ñii ñëpp tey voilà dinañ am déggoo ba mën a def ab coalition bu dëgër boo xamante ni dinañ am ndam ci élection yi ñu det ma ah, ñoom moom xam nga wàllum transparence atel la ñu wax. Hmm. xam nga li ma la ñoom daal alliance la pour la transparence su élection yi ñoom loolu lañu wax. waaye hmm. waxaguñ ne. nañuy bokk ñoom ñëpp dañuy dañuy bokk. ñoom ñëpp dañuy bokk bo dëkk bii nag yow yaa ma gën a xam coalition moom damaa mës a fekk fañ ko doon defaree. muy yeewee askan bi coalition réew mi rawatina nag yow yeew yi matoo woon sax trente coow loo xamante ni laa lay wax ni yow pour ngeen tànn maire wala ngeen tànn député rek. bakkan xaw caaro nees tut ay jaasi génn waxoon dama la ak cent trois te ma doon leen moom sax cinquante ñu tax ñu naan ay ay coalition la amut mënul ne du ñu ànd semblant yow loo ko jàppee honorable ànduñ semblant nga ko jàppee non ils <laughs> ñenn ñi laa rus ñenn ñu ca ne dama leen a xaw a rus. waaw rus leen ndax eh, ànd naa ak ñoom nag te doon wax ne dañoo baax moo tax ñemee maa taxaw ne dañoo bon waaye waa boor bee moom yéen yéen ñi toog yéen sax a ko def yéen dëbb réew mi ba mokk yow Abdou Mbow ñëw ni géng noonu toog ci kaw taabal ci. man Abdou Mbow rek laa yem. du ma gisee image bi. dama ne àdduna doy na waar nag doy na waa de eh, Olof Ndiaye naan àdduna lompier bu ñu demee ba Abdou Mbaw dend ak Pape Djibril Fall toftal ca Khalifa Babacar Sall. bugaan ci wet gi. tontoo bugaan ñëw. tibb tànk. tata Anta ñëw ca wet ga nga xam te ne àdduna. xataraayu ci ci ci campagne. ak li fi xewoon yëpp yow tu as l'impression que est-ce que réellement politiciens yi jox nañ cër askanu Sénégal. Mm-hmm. parce que mënuma comprendre am na ci loo xamante ne sax xel mën na ko mais am na ci loo xamante ne même xale bu ndaw bu am deux ans tey jii xelam du ko nangu. Mm-hmm. soxna jaara mm-hmm. parce que li fi pour man li fi li fi jot a xew ni fàtte xaju fi de ñoom ñiy daje nii nii si seen rôle lañ nekk de pare nañ pour ànd de mais bëgguñoo ànd xaw ma xam nga li ma ñoom pare nañ pour le moment pour ànd mais wóor na yàlla bëgguñoo ànd. <laughs> lii mooy ànd par circonstance ànd boo xam ne cela veut dire yaa ngi ànd ak moom. mais yow nañ ànd rek ba ku nekk am lu ñu bëgg mm-hmm. et pour man dafa jot ñoom ñenn ci politiciens ñi ma ko sañ wax ñu bàyyi di ànd ak nit par circonstance mm-hmm. parce que lii ma ko indi xam nga dañuy faral wax naan saa bu ñu politicien duñu wax dëgg et pour man loolu ñoom ñooy def lu tax ñu leen koy wax parce que tey jii da gis nit kuy xas ni sax naan ko jukkoy politicien nga yor mm-hmm. cela veut dire yow nga jukko boo xamante ne jukko bu bon la doo wax a changer et ñoom dañu war a comprendre que nit te affaire yi dafa changé bu njëkk ba politiciens yi ñoo daan daw ci ginnaaw sénégalais ñoo daan daw ci ginnaaw politiciens yi mais léegi ñoom ñoo daw ci ginnaaw sénégalais da ngay gis léegi bu campagne amee dañuy ñëw lekk sa xaalis jox nga jox la sa ñu lekk la ñu lekk ko ak yow ci fulla bu voté jotee ñu dem votal ku leen neex. élection yi mujj yi liñ ci indoo loolu lañu wax dañuy mbaraan kii dem sëy ak mm-hmm. ñoom nañu muus tam ñoom poli fi man politiciens ci bopp ñoo commencé départ de parce que alors Amina mi ngi woon fa am solo comme li ma wax sànq rek. voilà ñu jàppee ni askan bi ñooy nelaw. alors que ñoom ñoo nekk di nelaw ba léegi ñoom ñoo nekk di nelaw parce que dañu war a xam ne politique politicienne jeex na fi bu daal léegi sénégalais soit da ngay def lu ñu bëgg ñu ànd ak yow. defoo lu ñu bëgg ñu dem bàyyi la. Mhm. boo seetee ñoom ñu toog fii. ba fekkente ne da nga lim ki nga xam ne moo di xalifa Ababacar Sall dala leen xalifa Ababacar poids bu mu amoon amatu ko boo ñëwee ci euh, Tata Anta Anta daanaka moom bañ na ko ba ay cortège am Anta dong moo doon ànd ak boppam kon xam nga kooku amul pois politique boo xamante ne je suis très sérieuse amul poids politique boo xam ne mën na tiital ñu fi nekk. nga ne Anta rek Anta rek moo doon topp boppam xoolal xoolal xoolal xoolal boo jugee ci Anta xoolal <laughs> ajuna moto mooy boo jugee ci Anta. moto gis naa ko ci biir mbooloo bi. kuy ajuna moto. seen réunion bi moo xoromu seen conférence de presse. léegi yow boo jógee boo jógee ci tata Anta. xoolal Ablaye Balde. xaaral Mbaye a xool ñi ñan lañ. Ablaye Ablaye yaa ngi nii Ablaye Ablaye Dieng. Abdoulaye Seydou Sow gis naa ko fa. El Hadj Maître El Hadj Diouf. Ablaye Ablaye Dieng. nga ne kan la. Ablaye Ablaye ay Yaay Diouf. i péye si si. bàyyi nga def bos. i Ablaye Sène baaw ka gay i Ablaye député Benno baaw ka gay i Mata Diop